yalla mi nga xamne moy buru buri di suñu bur tay ak ëlëk dembu ak waxtu ne sant gu am tambali te amut yamukaay di leen ko ko santle di diko sant ci doomu adama ji muñu def gannaaw ba muñu sakke def ni ñuy ay fam di ay jamm diko sant ci mbolam xéet yépp ndax dafa wax ne maa leen sàkk ba nopp wuruma leen woon a sàkk ndax firinde la ca ba mu ñuy sàkk malaaka yi ne ko danga ñii ngay sàkk bu bu leen wàccee ci kaw suuf si dañu yàq suuf si sunu borom xamal leen ne xam naa lu ngeen xamul njërmaane jooja mu amoon ca malaaka yi ba tax mu sàkk leen ba ñu fekkee ba muy sàkk aadama ak awa malaaka yi dañ ko dese woon a xam yërmaande jooju la leen fàttali leen fàttaliku leen yërmaande ji ma ji ma ji ma am ci yéen ba ngeen nekk fi ba heure bi ba fekk ma sàkk aadama ba war ko wàcc waaye yéen doomu aadama yi li tax ma sàkk leen ba noppi waruma leen woon a sàkk la ma leen koy fayee mooy lenn laa leen ameel mooy muy seen wërsëg muy dund ak xéewal yoo xam ne mi ngi ci yéen waaye nag li tax ma waruma leen woon a sàkk mooy fàttaliku leen la malaaka yi waxoon daan ne ñi ngay sàkk ay kat lañ kon ñi ngi koy sant ci gënal googu nu ko gënal ci mboolem li mu sàkk di ko sant ci wërsëg woowu mu ñu defal xam ne ay tooñkat lañ mu may ñu yërmaande sàkkal ñu dunduk doomu aadama ni mu war a wëriyee ba xam xamle ko ci wax ji daan ne kon dee leen ma tooñ di ma jég dee leen bu ngeen ma tooñee dee leen ma jéggulu ma jéggal leen ngeen may ñaan ma may leen ngeen di ma sant ma di leen dolli kon noo koy sant ci loolu ndax mboolem bis bi lu ñu fi def ci ay xéewal mënoon nañu sàkk ñu mel ne loola ndax moo wax ci alxuraan ne sama xob wee di naaw sax am naa lu ma ci jublu kon xob woowu di naaw nga xamante ni ngelaw rek la am na lu mu ci jublu bu ko neexoon sàkk ñuy xob bi ñuy dëgg te wala mbuus gi ñuy dëggate fii wala lu mel ni benn yi ñuy jëfandikoo fii muy ay xéewal muy ay mbindeef yoo xam dañ leen tër ray leen te mu dagan ñu waaye defuñu noonu mu def ñu ay doomu aadama daan ne li ma dama leen sàkk ba noppi fas yéene leen def ci mbindeef bi ma gënal muy muy doomu aadama kon noo koy sant ci loolu bu baax di ko jëggalu di leen ko jéggalul di ñaan mu jéggal moom sunu borom di ko sant di ñaan mu nangul nu suñu sant di leen ko le moom suñu borom di ko ñaan mu dolliñu ay xéewal yu yaatu te bari lool ànd ak barke te ànd ak kaaraange te lépp jàmbu ëmm ko tey ak ëllëg di ko ñaan moom suñu borom boobu mu nangul nu suñu ñaan te lépp ñu ëmbi ko yéene ëmbi ko pas-pas di ko ñaan mu defal nu xol boo xam ne lépp lu ñëw ci ñun daan ko mën a jëmewaat ci mboolem ngir nu mën noo sant ndax ak santam gën a kawe ci ñun bu ëllëg bu nu eggee ca moom dunu rus di julli ci sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi sunu yonent di wax sunu borom ne ko gannaaw ba nu fàttalee sunu bopp ne mooy sunu buur di fàttalikuwaat ne sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu buur démb mooy sunu yonent démb mooy sunu yonent tey mooy sunu yonent ëllëg mooy yonent yonent yi mooy yonent awliyaa yi awtaat yi aqtaat yi mboolem lu yàlla sàkk mooy sab yonent rawatina ñun doomu aadama yi rawatina ñun xeetu yonent yàlla aadama rawatina xeetu mboolem koo xam ne Seydina Muhammad la bokk rawatina mboolem kër njaboot ku bokk ci njabootu Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di julli ci moom tey fàttali suñu borom ne yonent boobu mooy sunu yonent tey mooy sunu yonent ëllëg mooy sunu sang démb ak tay ak ba fa nu jëm di ñaan sunu borom mu saxal ñu ci ak dëggal dëggal googu moo di ñu ngi fàttaliku suñu sang bu baax ba tey ñaan sunu borom yokk ay mayam yokk ay leeral dañ ñaan suñu borom mu kàttanal ñu bañ man di ko sant lam lam bëggoon ci ñun muy Seexuna Seexul Bamba Xaadimu rasul di ñaanal Seex Masamba Mbàkke sunu borom yok leeram da koy fàttaliku di sunu buntu ci Serigne Touba te ñaawut ci xare yonu yoonu murit tey ñaanal sunu wajiru baxo cheikh salim serigne Saalimu Sëñ Masamba Mbàkke ñaanal mbollem gaay bax yi di ñaanal ko faddu di ñaanal suñu borom kep ko faddu suñu borom teg loxo ci njaboot gi mu fi bayyi ginaaw lolu li ñuy njëkk ubbee laataa ñu leen jot li cantuk serigne jili ñan moy ndigal yi nga xamne ne la fi suñu borom bayyi te bis bu melni len rek tax ñu ko te ndigal loolu mboolem ko yàlla sàkk ci yonent yàlla aadama ba ci yeneen yonent fi jaar yëpp ndigal loolu rek moo fi mas a am te ku fi jaar moo nga yeesal te ndigal loolu mooy ndigal li Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasul yeesaloon mooy farata yàlla yi ak sunnay Seydina sunna Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te mboolem ku fi nekk mas ko fay nekkal nekkal fi Seexuna si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasul ndigal la mu fi bàyyi woon rek danga ko yeesal na mu yeesale woon sunu sayyidna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak faratay sunu borom yi ak mboolem lu baax lu mu ci mën a yokk ñoom yaakaar ni fii ñu dajee loola fi sëriñ bi yeesaloon mu jóge ca sayyidna muhammad jóge ca gaa yu baax yi di ndigal loo xamante ne nii moo jóge ci téere yàlla yi mooy li nga xam ne mboolem koo xamante ne nii moo fi toog wuutu fi Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul nekk muy ca Seex Mahamadul Moustapha ba ci Seex Mahamadul Muntaxa mi fi nekk tey yàlla na fi yàgg te wér suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam ndigal li ngay joxewaat du lenn lu dul ndigal li yàlla digale digle woon te jox ko yonent yi ñu wàcce ko ci téere yi te gaa yu baax yi di ko jottali di ko jàngale te Serigne Touba bàyyi woon ko fi mboolem ko ko fi nekkal di ko firndeel di leen ko fàttaliwaat ndegam jëwriñ laa ci yéen wala jàpp wala jàpp naa ne jëwriñ laa ci yéen wala am na kàddu goo xam ne dénk ngeen ñu ko ñu fas leen koo yëkkati ngir ngeen jot ca ñu leen di fàttali ndigal yooyu ne képp koo xamante ne yaa ngi teew ci jataay bii sëñ jili di woote ndigal yooyu dong nga tax mu woote jataay bii waaye du dara caaxaan yoo xam ne tax na mu woote jataay bii kon ñu leen koy fàttali te ndigal loolu moo fi bàyyi sëriñ Muntaxa te moom la fàttali barki dem ba saa su nekk suñu waxtaane dëkk bi fu kër sëñ Touba mën a nekk ci àdduna bi rawatina diggante Màkka ak Touba ndigal yi sëriñ bi digle mooy la sëriñ Touba digle woon mooy la Cheikh Mamadou Moustapha digle woon ba mboolem ko fi jaar ba sëriñ Mamadou Muntaxa mi ak fu waay mën a nekk te nekkal fa sëriñ Touba mooy sax ci ndigal wattandiku tooñ ku la tooñ nga jéggal ko fonk sa ñaari waajur di jaamu yalla lo ci man nga diko ko def lo ci meurut nga diko ko te lepp nga tënke ko ak maanu te ku la dugal ci bopam nga soko waxtan ak mom lii lañ leni di tay ñaan suñu borom katnal ñu bañu mën ci ané ñaan suñu borom buñu ci nekké mu dëgëral ñu ci ñaan buñu juumé suñu borom may ñu ñu mëna jéggulu ba mëna téggu waat ci ndigal yi nga xamanté ni mom lañu fi sëriñ bayil te mom lañu sëriñ Muntaxa digal te ñu dajé fi te kenn ku ci nekk fa nga nekk ndigal yooyu ba ngay dem moom nga fa bàyyi te fi ngay jëm fii jàpp nga ne mu nga fi fekkaat te bi nga ñëwee ci jataay bi ndigal yooyu nga fekk mooy jaamu yàlla waxtu wi jot ñu julli jàng xasaayit jot ñu julli ñu ñu ñu jàng xasaayit dégloonte saafoonte li lislaam santaane kon nag ñu ngi leen koy fàttali di ñaan suñu borom mboolem ko ci nekk yàlla na suñu borom dël mboolem ku ci nekkut yàlla suñu borom may nopp yoo ko dégloo ak cër yoo ko jafee ci kàttanu Sëriñ nit ku ànd ak jikkoom ju baax dong seytaane day dalay tàggaleeg moom waxuma laak nag ñaar ñu ànd kon sëñ jili su ànd ak jikkoom ju baax ba tàmbali lu mel nii ba ci boole kenn ak ñaar ba di ko tudde euh, sëriñ Basiiru Njaay xaadimul xaddim ba ci woo eh, fekk bala mu cee woo kenn nag waaye jikkoom ju baax la la ko njëkk àndal ba tax mu man ko waaye bu ko mënutoo nag jikkoom ju baax di ko wéeti di ko def du ko mën a génne ci ëtt bi ba koy génne ci buntu kër bi ba koy génne ci mbedd mi bay dem ci ay jataay di ko fa def bay wooñoon ñuy ñëw kon jikko jooju sëñ njiili am ba ngeen am jikko jooju ba wuysu ko ba jikko ji ngeen am ba ànd koog moom muy ay bokkam yaay dëkkandoom di koo xamante ne nii rek jugee na dëkk ak dëkk ñëw egsi ci jataay bii ñu ngi koy ñaanal ci barkeb Seexuna Ahmadu Bamba Xaadim Rasul jikkoom jooju suñ borom bàyyi ko moom saytaane bañ cee man dara ndax bala mu laa tàggalee kenn wala mu tàggale ak lenn sa jikko ju baax la lay njëkk a tàggaleel kon ñi ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa jikko jooju sëñ jili am te ngeen am ko ba wuy si ko suñu borom dëgal ko ci yéen dëgëral ko ci yéen sàmm ko lërë gi bañ mën koo def ay at di jiital ci cant ki ñuy wax soxna soxna si ñang di suñu wajur di wajur sëñ jili mi ndax soxna awa ñang soxna awa ngañ ñan ndax bu ngeen gisee soxna jaara ñu doon laaj léegi sëñ seexu naa mbaj naan ko na nga dolliwaat dolli ci soxna jaara ñu déglu li nga donte jàng na xasaayit jàng na alxuraan waaye taggal ñu soxna jaara gi mu doon taggit ay jikkoom dong la doon tagg waaye jeyu ko woyu ko ngir ñu jaye ko ca ba li mu koy jàng li muy neex neex ay jikkoom rek la doon tagg kon sa wajur wu baax wii nekk fii di sunu wajur di wajurum booram ko fi nekk bu amutoon jikko yu baax du la ba nga ne ci lii bu amutoon jikko yu baax du fekke lii bu amutoon jikko yu baax du sedd lii li ma koy seedeel di ko xamle te am naa yaakaar ne ku nekk mën na koo sedd sëñ jiili mii mooy mën naa koo seedeel fu kenn nekkut ne leer na ma ne la muy ànd man moom lay ànd ñëpp loolu mën naa koo seedeel te ñeme naa ko koo seedeel ba ci biir bàmmeel leer na ma ne li muy ànd ak man dongu lay ànd ak ñëpp sëñ Moustapha mii dafa am baat bu mu wax léegi daan ne Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa am baat bu mu bu mu wax fekk da koo tëjut waaye sëñ Modou Moustapha dafa wax ne bunt bu xatee rek nit ñi danañ fa yàgg ndax la ca biir moo bari ndax li ko waral mooy dañuy xat-xatloo ci bunt ba ku nekk ne may njëkk a dugg waaye sëñ Jili mi bu ne moo duggal ci bunt bee man Abdoul Fatah Mbacké du ma toog di xaar sax naan lu tax mu naan ma duggal ci buntu bee ndax leer na ma ne lu tax mu ma dugg ci lu baax rek la ndax dañoo fekk ci loo xamante ne nii moom dañ ko caa gis ba nopp ñu dégg ko ca mu ca doon ànd ak suñu rakk doon ca ànd ak suñu ñeneen te kum ñu mas a nuyoole boobu ba léegi kenn xamul ñaata at la lañ ko gisoon mu nekk ñu ànd ca ak moom te booba kenn boole wuñu ak moom dañoo dañoo ànd ci loolu comme ñu booleel ca lool la nekk loolu nag mooy lan mooy lu rafet te baax muy liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi liggéeyal Serigne Touba liggéeyal gaa yu baax yi mën a sàmmanteeg jikko ju baax seede dafa am solo nit bu faatoo dañoo jàpp ne rek lañ ko rafet seedeel adduna ci ko am solo ma di leen ko fàttali kooku dañ koy seedeel fii buy dund dañ koy seedeel bu faatoo la gën a am ci solo ci moom nag mooy muy dund lu rafet ak lu baax ci fa mu dëkk ak fa muy dem ak ci na nga xamante ne nii noonu la noonu ba ci biir bàmmeelam ndax la am solo ci àdduna mooy nga nekk ci lu rafet su ko defee ñu di la ko seedeel donte mënuñu laa tuddee al amin wañu tur wañu tuddee woon Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam danañ la ko seedeel la taxoon ñu tudde ko al amin te booba wooteegut ña ko tudde woon ay al amin moom sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al amin mooy boroom jikko yu rafet yi ba mu wootee ne mooy yonent bi ñoo ko xarabaat wëlbatiku ne ko yow mii ab xërëmkat nga ab jaamkat nga ko ban nga jikko yooyee mu nekkoon ba mbokkam yooyee doon ko tagg moom Seydina Mohamed laataa muy woote ne man maay yonent bi yàlla bi képp koo xamante ni yaa ngi koy doxe des na la ko seddal fii ci àdduna mooy jikkoy al amin jikko joji nak ñu di ko seedeel ngay dund su ko défé nit ñi wooru la ndax dañ ko wooru won ba lu ne lañ ko daan deng si jikko la al amin jojo aduna ci kam ci kim am solo moy ki nga xamante ni yor nga jikko jojo bañ man la sédel al amin moy man la deng ak man la wo sédel lola nga xamante ni dañ lay sédel lepp bala nga faatu ñu lay tim ci jaat ak dila duggal ci bammel jikko jojo nak mom la ñu gis ci serigne jili te gis nañ ne ku ñu gis ci jotaay bii moom lañ gis ci yow ndax gisuma kenn xëccoo fi ab jataay balaa am solo ñu bañ xëccoo bu xëccoo amul rek lu am rek daañu ko mën a seddoo ba santante su ko defee suñu borom daal di nangu nangu suñu jëf ji nu fi jëf waaye bu xëccoo amee ñu santante te gisuma fi xëccoo kon nag la am solo mooy kii nga xamante ni moo woote jataay bi jikko jooju yépp dafa dajee ci moom moo waral ak dal am xëccoo amul tout tànk ya sax boo leen gisee daanaka benn yëngu gisoo ko fi ñi ngi ñaan ci yàlla di ko ñaan ci Serigne Touba di ko ñaan ci barke borom bis bi xasaay di jooju nga am ba ñi nga woo ñoom ñëpp am ko suñu borom def ko ci mboolem jaam ñi barkeelal bis bi ma nangul ñu mboolem loo xamante ñaan nañ ko fi di sant ñi seen taxawaay bu baax a baax muy Serigne Bassirou mii nga xam ne dafa am ci àdduna ñoo xam ne yaakaar naa ku nekk xam na leen Sénégal ñu sant dañuy faral di wax ne ci ci seenu bëgg réew gëm seen réew sax ci ak ceddo fonkoon nañu réew mi fonk goo xam ne ci albure xeet yooyu yaakaar naa kenn du leen tooñ ndax fonk guñ fonkoon seen dëkk yaakaar naa kon rafetal nañ ci ceddo bañ ba am ab cër ci réew mi bañ leen koy farale ci wàllu saay yéen ñii nag fi ngeen bokkit rafetalaat ngeen fi ngeen bokk ci njaayeen googu ngeen bokk ba doon ay waay daara ay doomi daara bañ tudde leen mbirum Seexuna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul te Sëriñ Tuubaa nee na ko ca bokk la tànn kon sëriñ sëñ jiili bis bii nga xamante ne dafa tànn tudde leen ko nangeen xam ne du sëñ jiili du yéen sëriñ Tuubaa moo tànn tudde leen bis bi farale leen ko ndax bu ca seeni waajur nekkutoon ba sëñ jiili am ca yëg-yëg ngeen nekk ca ba mu am ca yëg-yëg fekk na sëriñ bi tànn na leen bu dugal leen ci yoon bi ba ngeen mën a nekk ci loo xamante ne nii ëllëg da ngeen cay nekk ba woo ca keneen kon nag nangeen xam ne lii jataay bu sëriñ bi nangu la jëf ju ngeen ci jëf sëriñ bi nangu na ko sëriñ jiili du lum tànn jël leen ci sayr dong la ko mën a def def na ko du nangu ngeen nangu ci ak woyof ñëw gunge ko ca ci saayir dong ngeen mën a dem ngeen ngeen ko mën a jëfee waaye lay baatin bu muy Serigne Touba moo ko tànn def ko jox leen ko jox ko seen jox ko seen jox ko seen njaboot jox leen ko ngeen moom ko ba noppi matale ko ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb Serigne Touba. donte yeneen bis mën mënta ñàkk bis buy ñëwaat bu mu mën a doon mu doon bisu bànneex doon bis bu mel nii bis bu ngeen mën a amaat yéen sëñ Basir waa kër sëñ sëñ Basiru Njaay xadimul xadim bis bu ngeen di mën a amaat rek mu doon bis bu mel nii. doomi daara nak bu meuna doon bis boy am bis bi rek lay doon mo xam bisum nakar lu melni nga fay def mo xam bis bisum banex lu melni nga fay nga fay def waye lima tax di wax moy bis bi ngeen di amaat yàlla na doon bisu banex bo xamne lu melni lay doon bu doonee